Elhadji dal leen jàmm ci xibaar yéen nga xam ne nag moom la xëyandoo lépp loo xam ne nag jëm na ci coow li nga xam ne moom la Ousmane ne lépp loo xam ne nag wax na ko ci lépp loo xam ne jëm na ci pétrole bi ak gaz bi nga xam ne daal moom lañ waxtaane ak feer bi nga xam ne moo nekkee ca fala mi bi ñu xamal ne moom Ousmane Sonko koy dafay gën a dëggal ay kàddoom ci njuuj njaaj yi nga xam ne daal dañ ko amal ci feer askanu léegi amul ñu xamal ne ak lu mën di xew daal marche boobee nga xam ne aar li ñu def nañu marche boobee nga xam ne la doon amal ñoom dañoo gëj a mobiliser maanaam daal mbooloo mu bëri daal leen di wuy ci lépp loo xam ne jëm na ci seen marche yi nga xam ne nag moom lañ doon amal source a xamal ne kay marché ba kay dafa wéet moo raw dajëb liir maanaam daal ñu bëri dajewuñ fa keneen foo xam ne nag daje naak yoon yéene kaay bi loo xam ne nag jëm ne ci financement DER bii nga xam ne daal joxoon nañ ko ñenn ci askan wi ñi nga xam ne daal dañoo lànk ne maanaam duñu fay maanaam daal ñooñe danañu rëx seen digg ndax ak lëkkaloo goo xam ne nag am na ci préfet ak procureur ak lépp loo xam ne nag jëm na ci police ngir ñooñee nga xam ne daal maanaam amee nañu bor ñu daal ko fay yéene kay nga xam ne daal ñoo nekkee ca canal boobee ay jafe-jafe yu metti la ñuy jànkonteel waaye nag bu ñu yi nga xam ne ñoo nekkee foofee dana leen fa jële laax ñoom dana leen fa jële ba ñu sa doci ndaxte kilifa gi di ne ñoom kay ñoom ñoo nekk bu ñu leen fa jógee amul lenn loo xam ne nag dinañ ko teg seen loxo yéene kaay bi di libération moom nag dikkaat ci drogue bu bëri bii nga xam ne nag jàppoon nañ ko ca port autonome de Dakar bu dem ci yéene kaay bi nga xam ne moo di l'observateur moom nag jamono ji professeur Iba yoo xam ne nag dafa am ci histoire bi nga xam ne professeur Iba Der Thiam doon dañu bañ ñi nga xam ne daal ñoo nekk fewee ñu daal koy andil ay jafe-jafe ñeneen ñoo xam ne am nañ ay jafe-jafe lii sa maam Cheikh Mbaye bi nga xam ne nag moo nekkee ci Louga jamono nag mur bi nga xam ne moo wër fa foofee boo matul dana nërmeelu yéene kaay bee ñu ko xamal direct info moom nag daal dikk ci lépp loo xam ne nag jëm na ci wàllu trahison maanaam war gi nga xam ne nag day daal man kay ki nga xam ne daal moom la mu daa doon bëgganteel damaa war war gu metti ndaxte gannaaw ba ma ko wóola jox ko lépp dem naa sax ba noppee ngir yóbbu guro mu daal di may lor jëndee ma ak tubaab may laaj nag Sénégal ana ngor ndax nituk démb ak nit tey wute nañu lool aw doxalin ba